askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom lañu ñu fanaane lu def faxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilah jàmm enquête yéen a kaay lañ koy xëy daal di doore mu ànd ci amani ko APR ni woon nañu nag alliance pour la république wala alliance rewande lu mu ci mënti doon nee nañu daal boo demee ba ca biir foo wokk rek foo fooy xasan enquête yéen a kaay fësal ko ci xëtam mu njëkk boo bëggee gis lu jëm ci wàllu problème mu leadership demal ci APR waaye yemu ca de wàlluk rewande rek yéen a kaay bi xëy na daal di koy fësal ci xëtam bu njëkk ni ñu nag ko du ca guleet fitna ji nga xamante ni ma nga cay tukkee ci parti njiitu réew moomu son excellence di Macky yéen a kaay di ko xamle waaye yemu ca rek rek bu ñu sukkandikoo ci Moussa Diaw di ab gëstukat mu dellu di xam le ni daal ko Macky Sall nag jotuta daal am lu jëm ci wàllu temps ngir daal partem bi yamuñu ci loolu de professeur Ibou Sané di ñu xamal ni ñu bu fekkee ak yox-yoxal tuuti mëkki am na ko bu ñu moytuwul pakki parti boobee dana mujjee nag ko ci ako kasaw kasaw waaye du ca yem rek sénégalais sax danañu daal di mujj daal di koy mën a ko jéggal moom mëkki yéene kaay bi di ko xamle noonee nag le quotidien yéene ki ni ko mbir ma nag daal di xew mu daal ñeel nag lii nga xamante dox na seenu diggante duñu jaaroo taal ñoom ñaar ñooñoo yéene kaay bi daal dellu di ko xamle l'observateur yéene kaay bi di ko xamle yemu ca rek ñu ni 15 yi di fukk ak juróom jot nañ ko daal déposé caisse de dépôt de consignation ñu ni commission yi nga xamante ni jot nañ ko daal teg waajal li nga xam xamante ni moo di nag rencontre conférence des leaders bi danañ ci daal di dellu si waat la turbine yéene kay ñëw ci lenn loo xamante ni ñeel na waa manko ni ñu am na lu nga xamante ni ma nga ci seen biir mu jëm ci wàllu investiture yi ña nga tey am nag ak xiiroog ngaayoo mu jar ñu daal di koy xoolaat lu jëm nag ci carte électeurs yi nga xamante ni ñu ngi koy defar bu ñu moytul ab report dina am ci élection yi bu ñu sukkandikoo ci Omar fay leeral askan wi daal di koy xamle booba la jamono nag vox populi ñëw ci Khalifa Sall ñu ni doomam yi jigéen nga xamante ni ñoo ko doon seeti ni ki démb nag da leen mujj daal di gàntal ndax mujj ñu ko daal di teg bët yéene kaay bi ni ñu loolu boo ko gisee nag bokk na ci yenn yu nga xamante ni boo gëstoo ba ci biiram ku bëggul ñu daal di gis anam yi nga xamante moom la nekkee ca prison boobee anam ya mu nekkee nag yéene kaay bi daal di koy xamle waaye duñ ca yem ndaxte nag prison bu rëbës ñu ni ay partisan wu Xalifa Sàll fa séene nag yóbbu combat boobee noonu ca biti réew boobale jamono Baara Gaye responsable APR ca Mbàkke di wax ni parti démocratique sénégalais dox na seen kaw ndaxte bennoo nag foofee ko amaluñ ko fa ku yabu ni xalaas laas yéene kaay wulli kii di Idrissa Seck foofe noonu ca lu jëm ci wàllu politique rawatina transhumance ji am ci wàllu APR ñi nga xamante ña ngay daw di ko utali condition yi nga xamante moom la Khalifa Sall nekkee ci prison bi ñu ne administration pénitentiaire bi fas yéene na daal di ci addu indi ci ay leeral rawatina nag li nga xamante jot na daal di xew ak visite ya doomam ya doon amal mu daat leen di wàññi zoom info ñëw ci li ngeen loo xamante mi ngi ci suufu ki nga xamante ni moo di Karim Wade mi nga xamante nii nag ndaw yi jot nañ ko daal di teg rawatina mu doon parti démocratique sénégalais mu doonub seenub candidat mayel bët yéene kaay bi libération yéene kaay di ñu wax lu jëm ci wàllu koppar nee na lu tolloog 20 milliards boobu léegi ñu ngi wax lu jëm fesman bi ak ma ni ko koppar yi nga xamante ni nee daal ci BIS et GBS bët yéene bi ak Ecobank la ko laale ak koppar yooyu nga xamante la ñu fësal ak ma ne ko bàyyam bii di ni Abdoulaye Wade la solo yéene kaay ñëw di ñu xamal ni ñu moo jóg ki nga xamante ni Sall daal di koy utu ñu ne xam ne nag assemblée annuelle bu bat la dem daal teewe ji ñu ni conclave ba am nag ca Inde lu jëm nag ci wàllu mbay mi ci Afrique yéen kaay bi di ko xamle ni nag bat fi mu toll ci entrepreneur africain yi la bëgg daal di sukkandiku ngir daal di indi révolution industrielle bi ci wàll wi réew mi quotidien daal ñëw di ñu xamal ni la xew nag fa nga xamante moo di Gambie kii di Adama Barrow taxaw na temm ngir nag daal jublu ci mbirum ngay dégganteeg moom wala nga am lu laal ci mbir moomu bu la yeboo nga teel a signalé bokk na ci am am suuf ak kër ak maniku lu ay compte bancaire yu nga xamante ni bi fësal na ni teg nañ ko loxo fafe noonu ca Gambie l'évidence yéene ñëw ci leneen loo xamante ni na wàllu transport ak transporteurs yi mu ni Diallo Niang secrétaire général STRS mu ne nag jot na daal di moom la wut ngir daat leen mettre en mal ak président loolee Niger mayel bët yéenekaay bi jot na daal di xëy daal di koy fësal noonee nag te mondial U20 Arabie Saoudite Sénégal daal di jot daal di dóor ko équipe boobu nga xamante moo di équipe bu Arabie Saoudite ñaari bal ci dara Koto Boys yi jot daal di wane seen bopp def bonne entrée ci li nga xamante ni nag moom moo ñeel mondial U20 yi suñu lamb yéenekaay bi ñëw di ñu xamal ni ñu préparation combat diggante ak kan mu ni Gris Bordeaux Balla Gaye numéro 2 mu ni fi mu toll nii dafa mel ni lépp la waajalaat ndaxte lépp la chamboulé ndaxte Balla ngir dugg këram rek lu ñuy jara xoolaat ak lu ñuy waajaat la ëllëguk Eumeu Sène ak ma ne ko ba xam mën na doon lii nga xamante ni mooy droit des arènes am déet nee na leaderu tay shingeer bi naam mën na ko doon wante condition baa nga ca biir ngeen yër yéenekaay bi am ca lu leen leer ca la ñu daal di dellu si ci yaari yéenekaay yi mu di vox populi ak ma ne ko l'observateur nga xëcc yaari yéenekaay yi daal teg mu dellu di ñu xamal ni ñu nekk foofe noonu nga xamante moo di barñi ko tout tànk bu am fukki at ak moom it ma ne ko ay atam matul te permis yoru ko mu di kawtef noo ne yéenekaay bi nga xamante ni moo di l'observateur ca wet ga moom it daat ñuy toftal lu ñeel coowul ki nga xamante ni moo di kan Nadège ak Liliane ñu ni nag benn weeru kaso danañ ko daal di tëdd ndax ko la ñu def ko di lii ka jum noonu yéenekaay bi ba tey addu ci leneen loo xamante ni nee borom ñaari jabar yi ca Louga mu ni déedéet jëg jigéen du am ñaari jëkkër kay la ñuy wax ndax bii gami la ñu wax lépp lu leen ci ump yër leen ko ci biir yéene bi waaye soxna Njawar lamb ji ñu fas yéene daal di jëm moo di lan lambi charu ramadan mubarak yéen kay yi de ak astronaute yi la ñu gëstu moo di lan samedi 27 mais ci 2017 lañ koy door ñu yéene ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari rek ko kenn ngëb na ko ñëpp comp as lëf ci yéene kay jaa ngeen jëf